dama am mbégte ci nii ngeen teeroo nii ngeen teeroo lii ñu leen defal fii ci plage bu Kusum am ngeen ne plage bi demoon nañu demoon nañu ba géej gi lekk ko demoon nañu ba géej gi lekk plage bi demoon nañu sax ba tali bi corniche bi nekk en danger kon ñu ne nañu defaraat corniche ndakaaru jox ndakaaru xar kanam boo xam ne ku fi ñëw xam na ni corniche bu rafet la ñu waaye toppatoo wuñ ko woon kon war nañu ko defar def fi ay garab ni ngeen ko gisee def fi ay fleur def fi ay balançoire fi mu nekk bi mën nañu wax mooy bi gën a gudd ci àdduna bi ndax balançoire u téeméeri mètre ah, xaw ma ndax am na feneen waaye déggaguma ko lii nag lii dafay njalbeen rek ci li ñu tàmbali ci Ndakaaru parce que programme bi mu ngi tàmbali fii ci bloc des Madeleines ñëw porte du millénaire dem ba université dem ba Mermoz dem ba Wakam ci mosquée de la divinité loolu yëpp li ñu tàmbali fi moom mooy am te étudiants yi bu ñu ñëwee ba université am na lu rafet a rafet lu ñu fa waajal ñu tuddee ko Agora muy bërëb boo xam ne bërëb bu yaatu bu taar boo xam ne guddi ak bëccëg ñoom daañu mën a ñëw di fa jàng di fa tàggat seen yaram ndax xam nañ ne ndaw ñi bëgg nañu sport waaye fii tam gis nañu ni mu mel liggéey bi pareegul kon nag ah, damay sant ñi nga xam ne ñoom laa dënkoon liggéey bi muy ministère de l'urbanisme bi Ablaye Sow yor mu ànd ci nag ah, en étroite collaboration ak ministère bu environnement bu Abdou Karim Sall ñoom aussi ñooy liggéey parc urbain forestier bi ñu def ci Wakaam ak Ngor pour def fa mu nekk parc boo xam day am ay garab ni parc de Hann mel muy foo xam ne nit ñi daañu mën a noyyi bu baax ci biir Ndakaaru daañ mën dem pique ànd ak seen njaboot gis aussi taaru Ndakaaru ci wàll woowu may gërëm gouverneur bu région bu Dakar ak préfet de Dakar ak sous-préfet de Dakar Plateau di gërëm maire yi nga xam ne ñoom ñoo yilif gox yi rawatina maire Dakar Plateau Alioune Ndoye naka noonu maire Medina Bamba Fall di ministre conseiller moom bokk na ci ñëw ànd ak gouvernement bi ñu liggéey maire point e fan point e Pala Mbengue également ndax commune am dañ ko impacté maire bu fan point e wax naa ko waaye maire bu Mermoz Alioune Tall moom itam commune am impacté nañ ko te waroon na fi sax teew certainement waaye maire Wakam aussi gàcce ngalaama muy Abdou Aziz Guèye ndax ci moom lañuy ñuy ci phase bu njëkk bi parce que daañu dem ba ci juma mosquée de la divinité donc corniche bi yëpp dañ koy aménager nit ñi di mën di wàcc jàkkaarloo géej gi di def sport euh, mais di ko toppatoo aussi di ko nettoyer loolu maa ngi ñaan maire yi ginnaaw bu état bi liggéeyee ñoom itam ñu indi contribution monsieur le maire monsieur le maire pour que l'entretien de ces locaux puisse être pérenne afin que les populations puissent durablement profiter de ces espaces maa ngi nuyu nag entreprise bi ko def waa Maroc la Kinaan la tudd Kinan Menem ak ñu mu àndal yëpp gis nañu seen liggéey liggéey bu set la parce que boo demee tey Abidjan ñu ngi fay def liggéey bu mel ni ak réew yu bare bare kon loolu dañ ci kontaan di leen ñaax rek pour que bala octobre novembre 2013 2023 ñu pare liggéey bi yëpp fii bee ci parc urbain bu Wakam ak euh, bu Ngor mais aussi ñu pare surtout corniche bi mën song nag yeneen boulevard ci biir Ndakaaru yu mel nu Bourguiba yu mel nu yeneen axe yoo xam ne au moins mën nañ defaraat trottoir yi jëmbat ay garab et c'est may ñaan waa Ndakaaru képp ku nekk sa kër li ko wër mur bi ñetti mètres yu ne war nga fa mën jëmbat garab suuxat ko toppatoo ko su ko defee dëkk bi dana set dëkk bi dana neex Euh, te loolu lu am solo la ci suñu environnement ak suñu écologie ministère de l'environnement dina pare pour jàppale leen ci garab yi plante ak agence de la reforestation et de la Grande Muraille Verte dañu liggéey ak yéen ak ministère du cadre de vie pour que maire yi ak ñoom ak délégué de quartier yi ASC yi ñaan waa fédération ASC yi ñoom it ñu impliqué wu ku nekk sa gox nga nettoyé ko ku nekk sa gox nga jëmbat fa garab ndax ñu taaral suñu dëkkuwaay loolu moo waral programme bi maa ngi sant ñëpp du gërëm ñëpp wasalaam.